aadamoo aadamoo kii mooy suma madam kii mooy maam jaara bu sa borom parakaan aadamoo billaahi bu ma amee doom danaa la ko tuddee aadamoo moo ma may kar tabaski ay waay aadamoo teral nañ waay ay waay waay waay aadamoo rang rang aadamoo aadamoo nga gudd fan aadamoo yàlla nga la defal jàmm Adamo Sénégal yépp bool na ma yow Adamo yaa may seede lu rafet Adamo di ma encouragé Adamo may na ma xaru tabaski ay waay Adamo ku def lu baax yàlla dana la fay lu baax Adamo yàlla na la yàlla defal jàmm ak salaam Adamo ñun ay sénégalais lañu Adamo man Samba Dem musuma xool si yow vidéo ba mu wax si yow lu ñaaw parce que man awma jot yooyu amuma jot ci xool nit may wax parce que ku nekku si lii yang si lee ku nekku si lii yaa si lee Adamo Adamo Adamo may na ma kar tabaski ay waay Adama may nañ ka tabaski yow kontaaral ren Adama Adama Adama Adama may na ma kar tabaski rang rang rang Adama Adama Adama rang rang Adama rang rang Adama Adama Adama rang rang Adama Adama Adama rang rang Adama Adama Adama rang rang Adama rang rang Adama Adama Adama rang rang ay waay Adamo may na ma kar tabaski rang rang ay waay Adamo ti ti rang rang rang Adamo ay waay rang rang rang Adamo may na ma kar tabaski ay waay rang rang ay waay Adamo ay waay Adamo rang rang Adamo Adamo rang rang Adamo rang Adamo rang yàlla guddal sa fan bu la neexoon ñi lay awaay ay message di la wax Samba Ka li muy duggal si vidéo dafa bëri danaa leeral waral may dugalal vidéo yu bari ñi nekk Bercy dañ may woo am na ñoo xam ne nag am na artistes yoo xam ne ñu daw ñu ngi bëgg siiw ñu ngi koy jaarale si man di ma wax ne tuddal maquette nangam defal lii lii lii loolu moo waral vidéo yi bëri waaye du dara du dara du soof du ubbi tiktok rek may déraas kenn bëgguma loolu may ñaan nag yow Adamo yal nal yàlla defal jam ah, Adamo man Samba du ma yoral nit lu bon ñi saaga di wax ku wax man lu bon baxal naala kontaan naa si lii nag kontaan naa si li ma defal rek kontaan naa si li nga ma defal mooy nit ñi ma xalaame yow ñoo bari maa liir de maa ngi liir waaye tontóoreen dégg leen wax ni bàyyi leen doomi jàmbur mu dem Sénégal dafa iñaane loolu nax li nga wax dëgg la akub Sénégal am nag dafa am ñoo xam ne dañu soxor waaye nag aali bo di la félicité di rang rang rang muy majji majji bu Europe <laughs> Adama